Euh, yaakaar naa ne question yi ngeen posé bu ñu defee recoupement am na fu ñuy àndaatee parce que c' est toujours les aux institutions gis nga ñun jàngalewuñu mukk ne dañuy bafouer nos institutions wax naa ko sànq dafa am loo xamante ne Pastef taxawuñu ne. lan mooy désobéissance Pastef Pastef taxawuñu ne euh, dafa am euh, ku ma am ndey ku ma amul ndey sénégalais yi ñoo constaté de visu. ñoom ñoo teg seen baaraam ne lii dafa am ko mën a. mais loolu seen wax la su tëddeewul njaaxaanaay jox naa leen ay cas d' école combien de cas d' école. loolu du ko amul ndey ko am non combien de cas d' école dof ndey taxawul fii nii saaga. anamu tey Ahmed Suzanne Camara taxawul saaga fii nii président Ousmane Sonko. tey man bu ma taxawoon yëkkati ay kàddu yu ñàkk war ma tuuti waxuma la ci ci ci ci ci ci Macky Sall c' est un président après tout. mais am na nu may yëkkatee ay kàddu yu ñàkk war ma ci justice léegi ñu ñëw jël si ma fii. Macky Sall nga wax mais cest dire cest dire yéen journalistes yi. sànq seen revue de presse. non non non dafa ndànk yéen yéen yéen ci seen revue de presse. mais attention dafa am euh, borom xam-xam ñu woowee Rousseau dana ci lettre écrite de la montagne dafa wax lu leer nañu. Jean-Jacques Rousseau dana un peuple libre obéit mais ne sert pas il a des chefs et non pas des maîtres et c'est par la force des lois des lois qu'il n'obéit pas gis nga yoon nekkalu fi Macky Sall nekkalu fi Ousmane Ciss nekkalu fi keneen ak keneen war a Grégoire ak yooyu yoon ñun ñëpp la fi nekkal parce que c'est l'expression et l'émanation de la volonté tey jii nii nii bu fekkee ne tey Sénégalais dañoo gis ci seen bët ne benn responsable euh, Pastef bu waxee ñu téye ko mën nañu wax ne waa Pastef la mais déedéet yematul ci Pastef réew mi tout le monde est en danger tout le monde est menacé yéen journalistes yi nii mais dans l'exercice la plus accomplie de votre fonction ci lañ leen di tey yéen a ko wax sànq seen revue de presse. ne da ngeen di wax ñu ne délit de presse lañ leen di convoqué sëñ Saliou Guèye léegi lañ ko woo fii nii léegi lañ ko woo mais au nom de quoi cest gis nga man bi may ñëw sànq. Euh, am na ku ma woo ci téléphone ne ma siis fee gaaf ma ne ko ci lan euh, mu ne ma ah damay ragal ñu téye la. nga wax ma ne ko non man je sais de quoi je parle beneen bi topp barki démb am ko ne ma yow yaa ngi fii ba léegi suñu salle des profs ma ne ko lycée zone de recasement ma leen nuyu de passage mu ne ma yaa ngi fi ba léegi ma ne ko loo bëgg a wax foofu mu ne ma ah man damaa jàpp ne kat responsabilité responsable passé fi dañ leen war a téye ma ne ko nag vous ne mesurez pas ma ne ko vous ne mesurez pas la gravité de vos propos quand dans un état de droit quand dans un état de ñu demee ba nga xamante ne nit am appartenance politique. ñu ngi naan place am fee la waroon nekk. de d'honnêtes citoyens. ñu ci mel ni ñoom Bassirou Diomaye Faye ak daam bi ngeen wax léegi madame Sané. Aïssatou Sané ñi nga xamante ne takkal bracelet économique cest à de bassesse yooyu lay wax sànq yoo xamante ne loolu bu fekkee ne da ngeen di wax le bilan matériel du président Sall je pense que ni lépp lu mu mën def ci Sénégal du ñu deful dara parce que nihilisme ñu nekk ci politique boobu du ñu deful dara mais li mu def ci ay yàq ay jikko ak ci ay valeur ak ci ay comportement bu tabaxoon ay building dafa mel ni benn kan benn kàmb gu mag boo xamante ne da ngay jël building yooyu suul ko fa